ban xalaat nga ci am ci coow loolu. coow waxoon naa ci keroog mais dinaa ci indiwaat tuuti leeral. waaw ndaxte Amaro mën naa wax ne juum na. Hmm. ni mu jàngate ne juum mooy. Hmm. Amaro moo doon taxaw ne mooy papay Sidy Diop. Hmm. te papa day am néegu biir. boo xasee ba taxaw ci public àdduna Sénégal waxuma sax à Sénégal àdduna ñëpp ràññee yaay bàyyu diw bu njuumte amee ak erreur wool diw nga dugal ko ci sa néegu biir bu rayoon sa taaw sax woo ko nga dugal ko ci sa néegu biir Sidy Diop nag daa sikk moom daa sikk moom daf nit warkat la yooyu moom suñu boroom dakaa def ci jëmmam waaye bu fekkee ne yow danga taxaw yow Omaro nga ni yaay baayam yaa ko jur jox la nga sa bakkan bi jox ko ak bakkan tolluwaay ba mu am ba mu am kon bu fekkee ne moom jum na moom sa doom joojee eh. woo ko ci sa néegu biir nga yedd ko conseiller ko tegal ko tamit audio yi nga am mu déglu ko bu ko defee su fekkee ne moom Sidy Diop nit la dina réglé bu baax a baax a baax xool fi mu teg tànkam hmm. xool fi muy teg tànkam mooy lan artiste nga dañ bàyyi xel am nga image dañ koy bàyyi xel am na jotaay yoo xam ne waroo fa di dem hmm. am na jotaay yoo xam ne waroo fa di toog Sidy Diop dafa war a bàyyi dafa war a dépasser niveau jigéen ñi hmm. dafa war a dépassé niveau boo xamante ni nag à tout le temps boo déggee Sidy Diop problème mu jigéen la amat kii nangama nangama nangama. dafa am problème ak yow ci jigéen. non man man man du ma man problème ak jigéen parce que man du ma doon nekkuma ci jigéen ñi. Mhm. man ni nga may seetlee dafa am fu may fréquenté am fu ma dul fréquenté de du ma artiste nag waaye suñu borom def na ci man am naa image mhm. kon sama image maa ngi koy sóolaale benn Omaro mooy pape Sidy Diop loolu la wax gis nañ fi lu nekk Omaro jaaroon na ci waale jaar na fu nekkat fu nekkat fu nekk mhm. ni mu doxalee ak Sidy Diop Sénégal ñëpp bàyyi nañ ko xel erreur bi mu def mooy lan waru woon a toog ci média bi di waxal Sidi Diop lu ñaaw waroon na ko woo ci roxo ne ko Sidi man sama donk man wax na sax ci biir wax ne lan dafa dem ci benn kii Sidi Diop ñëw fa ñu ne ko pourtant sa papa Omaro fii la jógee kon loolu rek kon nit ñi xam nañ ne papaam mooy mooy Omaro mm-hmm. amaana mënu koo jur waaye moo ko bàyyoo mm-hmm. léegi siidi Diop Omaro bu taxawee yàq deram ñëpp koy gëm parce que mooy bàyyam Omaro lu mu wax si Sidi Diop dañ koy gëm parce que moom moo ko yor mm-hmm. waaye Omaro it nee na ci biir wax nee na bi muy jël Sidi Diop di ko yóbbu ci suba teel dañ ñu ko kii warkat la léegi yaa ngi xam ne kii warkat la nga continuer ànd ak moom war gi nekk ci moom nga continuer di nekkat moom ba mu neex la moom sóoraale woo ne yow bis bi mu def kii dina la ko def parce que Omaro ci biir wax Omaro dafay yee boppam ci biir wax nee na mm-hmm. kër gi Sidi Diop nekkoon kooku yar ko di soxna soo xaw ma nu mu tudd. Mm-hmm. yar Sidi Diop wutal ko ñu koy tëggal ñëpp Jeynaba Fall mère Jeynaba Fall mm-hmm. mu ni daf ko war mu ne oh, Sidi Diop dafa war kooku jóge fa roor kan ndey gay mm-hmm. jóge fa war ñu bëri te ñooñu nga xam ne seen capacité te ñooñu nga xam seen ndayo léegi yow nga continuer nekkat kooku di ko jàppale ba mu toll fii mën naa wax ne Sidi Diop tey bu amee yenn succès yi Omaro la am déet amee yenn buzz yi Omaro la waaw Baye Zal def na ci lu yàgg mais état bi ñu toll nii Omaro moo ko may li mu am. dëgg la bu demee ba nit ñi di ko xam muy concurrence at di def naa nangam Omaro la. Mm-hmm. Baye la mu waroon def na ko ba mu gisee war daa reculer. Mm-hmm. ko. comprendre nga nag Omaro yi ci biir wax nee na mu ngi jégalu Baye Sall. waaw c'est trop tard jégalu bi. Mm-hmm. parce que doo bàyyi ba problème am ngay jégalu. dégg nga ci biir nit avant que boobaa léegi def na ay at. jégalu woo Baye Sall ba problème am nga ni da ngay jégalu Baye Sall kon loolu mën naa jàpp ne c'est trop tard. parce que Baye Zall waxoon na leen ko ñëwoon kii warkat la. Euh, Sidi Diop Sidi Diop man tamit nee naa leen Sidi Diop warkat la du nit ku baax. yow ban kàddu nga yëkkati lu tax nga bon dama a wax en fait lan moo waral nga yëkkati kàddu yooyu di ko teg ci moom nga naan Sidi Diop warkat la da nga am ay preuve yu koy firndeel. non man war na ma naa la Sidi Diop daan naa ko jox dépense daan naa ko jox sama oto muy dem di dem soirée fëgg na ma trois heures du matin fëgg na ma deux heures du matin barkeb Serigne Saliou. am na ay seede ba bu bi mu amoon ma Ndiaye Seck rek buggu moom sax di tudd yooyu turu ma Ndiaye xam nga hmm. bi muy am rek boobu sama oto la yoroon mën na wax ne ba ba avant que su problème bi am sama oto la yoroon dem ci fi ñu tëggee soirée nu mu five bi mu ñëwee gardien bi la jox caabi ji ma yeewu jël sama caabi dem liggéey donc kon ay seq nañ ay teraanga te yooyu yëpp war na am loolu war la. te eh, yow maas li ñuy seq seq seq seq teraanga boo ma la boo ma defoon lu ndaw rek war ma rek may xam loolu dama la ma lay bàyyi man noonu laa mel ma tamit noonu laa ko def Sidi noonu laa ko def waaw waaw noonu laa doxee Sidi Diop warkat la moom Sénégal ñëpp ko ko xam nga Baye Sall nit ku dëggu la Baye Sall boo toogeen moom ngay xam ne kii dafa dëgg Baye Sall bu ba ni Sidi Diop warkat la rek Sénégalais yëpp war nañu xam ne kii warkat la mhm. waaw. Mhm. Baye Zale nekkul ciy caaxaan. Mhm. te it ku ku xam boppam la ku gëm communication. dëgg. Mhm. boo daan lancé conseil ku ci mel ni Omaro. ak lancé conseil ku ci mel ni Sidy lan nga leen wax. Omaro li ma koy wax mooy Omaro ku baax la te it ñëpp xamee nañ ku sëñ Saliou taalibe sëñ Saliou daa am nu muy doxee taalibe daa am nu muy xam nga fa ne lay passé sëriñam solo tere na ko sol tubaab. ba bàyyi na ko. ngir jëmmi sëñ Saliou Omaro man sa mbokkum taalibum sëriñ Saliou maa ngi lay ñaan nga dellu ci cant yi mm-hmm. ku mën a sikkar nga ku mën a jàng nga dellu ci sikkar yi dellu ci cant yi sëñ Saliou Thioune chaque samedi mu cant mm-hmm. dee fa dem di jël micro bi di jàng ñëpp xamaat la ñii nga topp nii artistes yi nii si di jóom mii nga topp nii boppam rek la gëm gëmu la gëmoon du toog ki jigéen di yàq sa der bu la gëmoon day nekk foo xamante ne ni que dañuy yàq sa der mu jël la part mm-hmm. kon mm-hmm. gëm la. Mm-hmm. beneen bi tamit erreur bi nga def waroo woon a génn ci internet bi di wili di wili Pandé Sidi Diop mën nga ko suturaal woo ko ci pet ngeen waxtaan nga soo ko dee bàyyi sax nga jaaree ko noonu bàyyi mm-hmm. waaye Sidi Diop lu ko waaye def mm, moo ko yóbbee ba parce que war baaxul. Sidi Diop bi ma ko jox mooy ndaw la te artiste la amaanu mënut a way sax waaye. déet déet góor góor la ah mënul way moom. Sidy Diop li ma koy conseillé xaaral ma àggal li may conseillé Sidy Diop sa téléphone génn ko boo ci indi génnee son Sidy Diop ma jox la cinquante mille. iPhone la yor. non déggoo de sa téléphone yow. génn non man sama téléphone amul yàlla dogal na li muy dogal ci moom mënul woy. non loolu bul ko wax délégué sénégalais yëpp xam nañ parce que bu dee mën nga koy créancé ak waale na waay loolu moom dama bëgg nga génn ci cadre boobu léegi bu adressé message Siri Diop nag maa posé question wala posé woo ma question waaw dama ne la bu ñu demee ban koy concurrencé ak waale ñu koy dire ñuy dirante mbagg mën na way voilà kon bu ne mënul way da ngeen maa posé question wala da ngeen ñëw pour tontu Siri Diop wala nangam nangam waaw léegi leeral la lan moo waral mënul way concurrence ak waali Seck loolu amul loolu defuñu ko ñoom dañ doon def ay moyens yoo xam ne bu sawaay génnee tey clip ñu génn ko bi ñu demee nag ba sa waay génne clip boo xamante ni ñoom amuñu moyen yooyu dañoo toogaat jàpp seen jàmbur mm. toog seen ruq clip bu ngalam bi da nga gis ñu tur génne ko. non ñoom de communication xamoo nuñ koy wéyalee. Eh, loolu dafa am nga dama déglu dama ne la. waaw ndax clip yi waa li génne fan yee passé da nga ñu génne ko parce que moyen la alal moo koy def te ñoom amuñu ko. seetaan seetaan nga seen clip bu 15 clip ban la ñu àndal xaw ma kii bi moom. Adiouza. lan Adiouza yooyu du clip yooyu fontu la rek yooyu dañ doon fon ñoom yooyu du clip yéen da ngeen di jaawale clip clip dafa nekk loo xamante ni nag international la. dëgg la. comprendre nga yéen ñoom mënuñoo def clip dugal ko léegi mu am 5000 vues ci saa si tàng tàng yi mënut a nekk. Mhm. c'est impossible yéen ñii yéen ñii yéen a ngi nii di ngeen ma dem a seetaan dem keroog fu ngeen fanaan fu ngeen fanaan Kaolack Kaolack waaw Kaolack lañ fanaan Bercy Saloum waaw Bercy Saloum lañ fanaan Bercy Saloum lañ fanaan Kaolack loolu moo ñu fi indi dañoo dañ lay posé mhm. question yow nga ñuy tontu waaw léegi tontu naa waaw Sidy Diop ban message nga koy sànni li ma koy sànni mooy mu gën a góorgóorlu ci musique am waaw amaana aayu ci waaye mu gën a góorgóorlu fexee aay fexee mën a way te bañ di dugg ci ay détails artiste du dugg ci détails artiste du toog fu ñu koy coowee artiste du dem ci ay kër jigéen di fa bëri tàkk comprendre nga artiste nelaw guddi gi na nga nekk si studio soo yeewoo ay 18 heures heure boo mën di yeewoo nga xool sax ay copains yoo mën a dem am sa benn koo foo xam ne da nga fay toog waxtaan ak say copains heure heure dem studio jot nga dem studio boo amee nag sa gel boo war a seeti nga dem seeti ko. pare ci waaye di toog ci ay jotaay man maa ngi koy conseillé mu maytu loolu te bàyyi loolu. Hmm. ñi muy àndal ñëpp lépp lu luñ ko mën di conseillé lu dul mu bàyyi jotaay yu bëri mu bàyyi di dem ci ay grand place ay mbeeraay yooyu da koy tardé. mais est ce que itam bu bàyyi yooyu yëpp te bàyyil war bi est ce que kuy war di nga di avancé war. waaw a dindi ci moom mooy lan ñu indil ma ko mu ñëw jébbalu ci man. waaw ah, loolu laa xam waaw. Ah, kon foog Sidy ñëpp ñëw jébbalu ci yow. war gi foog nga rocc war gi. lu ñuy rocc la. ok ah. d' accord. waaw léegi ñu demaat ci beneen aspect jógee ci Sidy Diop ak euh, kii euh, Sidy ak Omoro dugg ci Queen Biz ak Youssou Madjiguène Ndour génn nga def nga benn sortie c'est noté c'est noté Queen Biz yaa ko njëkk a jiin benn terme boo xam ne duñ ko tudd ci fii ah tuddal rek ah, non terme la laaw gi dañoo bëgg nga revenir à ci yow mi en personne yow mi ndayu mbili ji la laaw gi yow euh, Queen Biz defoon nga benn sortie foofu te Dakar Live amoon benn kàddu boo ko jël euh, kii ko ko accuser ko directement ndax yaa ngi dëggal sa propos yooyu ginnaaw ba Queen Biz jiinee Youssou Ndour de délinquant fiscal waaw loolu mu am loolu du loolu lu am loolu du deñ non lu am du li ko kii jiñ wala yow li nga wax euh, kiin bis mu leer dama bëgg ngeen bàyyi xel mhm. euh, dafa am lu mu wax ne dina génn leeral ci digganteem at Youssou Ndour mhm. loolu la wala wala mhm. maa ne la keroog ci interview bi ma am at waa Dakar laay ma ne leen si kiin bu génnee dix-huit heures wax ci Youssou Ndour ci li xam man ma génn dix-huit heures trente wax ci moom lima xam lan la mooy moom lan la xamal Youssou Ndour. giñ na ko délinquant fiscal. waaw mais loolu giñ la rek xam nga génnagul leeral. ci mhm. délinquant fiscal nga wax ko nit ñi. wax te génne woo leeral loolu wax la rek. mais bu génnee leeral bu génnee leeral ne Youssou Ndour lii at lii at indi indi ay preuve am. di nga teg ci taawul man tamit ma génne ay preuve. ci taawul bi loolu kese la. te boobaa est-ce que lu gàddaay Sénégal. waaw su boobaa moom xaw ma day politique ma lu mu mën di doon waaye su boobaa moom. <laughs> maa la wax loolu. délégué yow Queen Biz ban problème ngeen kiin bi problème bi ñu am man xaw ma ko woon bi mu génnee ne Wally il faut xaw ma lan lu mu waxati sax ci Wally. bu dafa bu dul papa ji di doom ji. waaw ñoom dañoo yenn musiciens yi. na yenn lu mu ci teg am na wax si si dañu bu dul papa di doom ji. daal di koy daal wax nan. non neen dafa ne problème problème bii nga xam ne ñoom artistes yi mayuñ leen ñoom ñuy jouer. kii la wala. non musul wax loolu. non si. kiwin bis yow moom da ngay faral kiwin bis quoi. non faraluma ko. lay wax terme yu. en daal ma ma tëjal wax ji. lu tax man ma bañ kiwin bis jamono jii. waaw bañ gi mu bañ Wally Seck moo tax ma bañ ko. point final point. li mu bañ Waly Seck moo tax ma bañ ko. ku bañ Waly Seck rek bañ nga ko. man ku bañ Waly ma bañ la ku bañ Cheikh Amar ma bañ la. ku bañ Waly Seck ma bañ la ku bañ Cheikh Amar ma bañ la. ku bañ Waly Seck ma bañ la ku ma bañ la ku bëgg sëñ ma bañ la.